alaykum wa rahmatullah mbokki daara ji maa ngi leen di nuyu di leen ziara bu baax ñu dikk ci bind bi insha allahu taala ahyal wara fahmu mahnaahu falaysa yura lil qurbi wal buhdi fiihi xayru munfahimi mu ne ahya lottal na alwara mindeef yi fahmu mahnaahu dégg mahnaam moom mooy dégg dégg dégg dégg dëggam rek falay sa yura deful mën a gis lil bi ñeel ak jegeñ wal buxde ak sori fii ci moom xayru mun fahimi ndare aji wedam xam dëgg-dëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam lottal na mboolem mbindeef yi ko jege ñoo ci yam xam dëgg-dëgg yonente bi daal lottal kasam si daa mel ki jant bi tazharu dana feeñ lil ayna ñeel ñaari bët yi min boodin ci ak sori saxiratan mbir mu muy aji ndaw wa tukkillu te muy lottal ab tarfa gis ba min amamin ci ak jege mu misaale ko jant bi jant bi boo ko dee seen tem sori la da ngay jàpp ne lu tuutee tuuti la ndax noonu lay xaw mel day mel ni kuppandal bu ndaw rek la waaye boo ko jege woon doo ko mën a xool boo demoon ba sës ci moom doo ko mën a xool ndax ndam tàngeek nam leere day tax doo ko mën a jàkkaarloo say bët ndax fii nga nekk rek ni léeg-léeg bu tàngee lool doo ko mën a sax xool kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam it noonu la mel ki ko sori ak ki ko jóge ñoo ci yem ne su koo xam dëgg-dëgg mu ne wa naka lay mën a jote wala naka lay mën a xamee fit duniyaa ci àddina xaqiqatahoo dëgg-dëggam xawmun aw nit niyaamun wuy aji nelaw tazallawu miis nañ anhu warif ko bil xolumi ci ay gént naka la ñu mën a xamee yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii ci àddina te nit ñi bi ñuy dund waxtu wi ñuy dund dañoo mel ni ñu faatu ñu nelaw bay gënt ko euh, xalaat ñooñu nag lañ mën a xamee dëgg-dëgg yonent bi alayhi salaatu ndax nit dañ ko misaale ne buy dund day mel ni kuy kuy nelaw waaye bu faatoo rek yeewu na ni ko al imaam al xasaali waxe woon annaasu niyaamun fa ida maatun tabahu ndax nit ki buy dund yu bëree bëri dañ ko koy làq dañ ko koy nëbbu secret yu bëree bëree bëri du ko xam waaye saa bu faatoo nag kumpaam day dal di deñ xaqaa'iq yu bari dañ koy wuññi muy jàkkaarloog moom di ko gis moo tax misaal ni nit ki buy dund dafa mel ni kuy nelaw waaye bu faatoo yeewu na ñu nag mun ñoo xam dëgg-dëgg yonent bi alayhi salaatu fa mablagul xilmi dayab xam-xam wala nga ne dëgg-dëgg xam-xam fii ci moom annahu mooy naka moom basaroon mbindeef la wa annahu te naka moom xayru xalqillaahi mooy ngën ji mboole mooy ngën ji mbindeef yàlla yi kullihimi képp ci ñoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal li nga mën a xam ci moom mooy ne doomu aadama la mbindeef la ci mbindeef yi sunu borom tabaaraka wa taala yi la bokk waaye nag sunu borom moo ko tànn ci mboolem mbindeef yi def ko mooy ki nga xam ne moo gën ci lu mu sàkk mu ne wa kullu aayin bépp aaya bépp kemtaan ataa boobu dikke woon na arroslu yonente yi alkiraamu ñay way tedd bihaa ci moom fa innama tasalat naka jokko na ci ñoom min noori yi tukkeem ca tukkee ca leeram ga moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam fa innahu nako moom samso fadalin mooy jantug ngëneel hum ñoom kawaahi kawaakibuha ñooy ay bidéom nga xam ne yusharna dana danañ feeñal anwaaraha ay leeram linnaasi ñeel nit ña fi zulami ca lëndam ya yonente bi alayhi salatu wasalaam boo dee xool ci saahir dafa mel ni moo mujje ñëw waaye eh, mboolem yonente yi yi ko jiit woon seeni kimtaan seeni saat ak seeni xam-xam ak seeni leer mi ngi tëbboo ci yonente bi alayhi salaatu mi ngi tëbboo ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa mel ni rek moom mooy jant bi ñoom ñooy bidiw yi jant bi bu làqoo feeñut bidiw yi feeñ ñoom ñooy leeral waaye xam ngeen ne bu jant bi feeñee bidiw ak leeram dootut feeñati yonente bi alayhi salaatu noonu la mel ak yonente yi ko jiitu woon ku ci nekk rek mujisaat yi nga yoroon nag say xam-xam sa ak leer dafa jokk rek ci saay yi yonente bi ak ay xam-xamam ak leeram kon loolu mooy bind bi mu ne axyaaloo tal na mi alwara mbindeef ya fahmu mahnaahu dégg maxnaam ma falay sa yuraa deful mën a gis lil xur bi ñeel ak jege wal bonde ak ak sori fii ci moom xayru mun fahimin dara aji weram كسامسي دا فاملني جانت بي تزارو دا نافين للعينين نيال نياري بديا من بعدين فاكسري سخيره مير مومي نداو من مومي لو نداو وتوكيلو تموي لوكال تموي لوطال الطرف جسبا من امامين تي اك جاغي وكيف يدركو نكالاي مانا جوتي في الدنيا تي ادنا حقيقته اب دغ دغم قوم او نيت نيام وي ادي نلاو تزلوا ميس نان ان هو ولف كو بالهلومي تي اي جنت فما العلم دغ دغ خام خام فيه تي موم annahu mooy naka moom basarun mbindeef la wa annahu ak naka moom xayru xalqillaahi mooy ngën ji mbindeef yàlla yi kullihi moo képp ci ñoom wa kullu aayin bépp kéemtaan wala bépp aaya wala bépp moojisa ataa boobu dikk ar ruslu yonente ya ñay way tedd bi haa ci moom fa innama tasalat naka jokk na bihim ci ñoom min nóori yi tukkee ca leeram ga sallallahu alayhi wa sallam fa innahu naka moom samsu fadlin jantu ngëneel la hum ñoom kawaakibu haa ñooy ay yuzhar na danañ feeñal anwaaraha leeram ga li naasi ñeel nit ñi fi zulami ca lëndëm ya